bàyyi na ko tey kon dama koy sant di ko gërëm réew mi jàmm rek a fi xaj jàmm rek a fi xaj lii daal tey xam naa ne àddina bi yëpp parce que léegi ba rabaa ñu may oo di moo wax naan kontaan nañ ci libération Khalifa Sall loolu lañ doon ñaan yàlla yàlla may nañu ko dañu sant yàlla bu baax. peu importe ñi nga xam ne noonu la génne porte xam man yàgg naa leen wax man damaa bëgg mu génn na génn bëggatuma maire bëggatuma présidence bëggatuma dara damaa bëgg mu génn libre loolu laa doon ñaan yàlla yàlla may na ma damay sant yàlla. alors madame le maire Khalifa Sall vient d'être gracié quelles sont vos premières impressions par rapport à cette nouvelle. toute la joie que j'exprime de le voir libre je ressens une joie immense je rends à Dieu de nous avoir. rendu notre mère, notre ami, notre frère. Et je remercie la Khalid Général Je remercie infiniment. Ces prières ont Je remercie le président de la République qui avait promis de le libérer et qui l'a fait. Je rends grâce à lui. Bah, peu, peu, importe aussi la manière dont il est. Peu importe. L'essentiel pour moi, c'était qu'il soit libre. Il est libre aujourd'hui. ma Makumba, vous l'avez entendu des larmes de joie moom ngeen di dégg noonu madame la maire de Dakar moom nga xam ne moom lañ doon jokkool ñi xolam moo fees moo tax